et professionnel élogieux. Couronné par la confiance du président de la République pour des responsabilités gouvernementales kaléidoscope d'une culture locale, nationale et africaine. élégante et positive dans son commerce avec ses pairs, tel un navire voguant tranquillement dans une mer calme à bon port, digne, altruiste, fière mais raisonnable. influente par ses idées, ses compétences et ses performances, affable, courtoise et humble, mais ferme sur les principes. y a du bon, du beau et du bien indiqué en abondance. L'expertise maritime dédiée à l'émergence Sénégal, développeuse toujours au service de ses proches, et sur le terrain économique et sociale, porteuse de l'enquête de quel appui et formation. Objective et juste dans ses jugements et arbitrages, pertinente dans la conception et l'élaboration de ses plans, projets et programmes. Pièce au nom de sa ticket, un ticket gagnant au nom de la commission départementale des femmes de Benobokéaka de Thiès. Je vous remercie. waaye jàppale loolu mbooloo mi yaakaar naa ni Modou Diop lii daw na yaram. merci. waaw taxi loolu mooy cadeau bi nga xamante ni ça a été offert. ndeysaan. par les femmes. du département. monsieur Amath Camara Mamadou Diop mu ngi doon di jóg aussi. ndeysaan moom it représenté la coalition Benno Bokk Yaakaar PIT. bi fils de la région de Thiès. monsieur Camara bienvenue. le maire Talla Sylla qui est là monsieur Maodo Malick Mbaye Gueule Sabab et l'ensemble des responsables honorable député Maïmouna Sène mention spéciale Abdoulaye Dièye toujours égal à lui-même derrière madame Ndeye Tické Diadio docteur Pape Amadou Ndiaye PCA Pongif représenté dignement également par monsieur Abdoulaye Diop Mamadou Diop dama lay bàyyi rek nga daal di continuer liggéey bi ci kanam. merci beaucoup waaw jigéen ñi tàccuwaat leen seen bopp li ngeen def rëy na. et man li ma gisee madame la ministre geste bi ça lui va droit au léegi nag ñu ngi saluer waat toutes les femmes comme ni ko waxee gis nañ seen taxawaay bu baax a baax a baax madame Ati Senghor bi nous vous remercions avec le réseau des enseignants madame Lawali madame Adji Diatta waa kër docteur Pape Amadou Ndiaye gis nañu leen madame Khady Gueye Adja Ngone Gueye Rahab Limti Maymuna Sène Honor Binta Sène waa kër Abdou Mbow Maguette Gobar Binta Fall Tëngu monsieur Mamadou Mbaye def concis monsieur Mor Ndiaye Mbaye nag bëgg ngeen tàcc ko bu baax a baax a baax le directeur de cabinet du ministre de l'économie numérique di doomu Thiès di doomu Madina di doomu kër Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina monsieur Mor Ndiaye ñu ngi lay nuyu bu baax di ko. loolu bu ko yëkkati sa loxo ñu gis la. Mor Thiès dañ laa war a gis. jërë nga xam ne teg sa a a baax directeur cabinet merci qui sont infatigables. di nuyu baax koo xam ni jaar nañu madame la ministre la waaye ñëpp naw disponibilité ak harmonie bi mu am. jëmale ko ci képp koo xamante ni responsable politique nga bu bokk ak yow APR muy monsieur Abdoulaye Dieye le président du mouvement Sibi Diop. di nuyu le digne fils thiessois l'ami des jeunes l'ami des femmes muy monsieur Maodo Malick Mbaye le directeur général de l'ANAMO le président du mouvement Sibi Diop. nous saluons monsieur Souleymane Ndiaye Brin. tonton Ousseynou Niass monsieur Cheikh Kane di nuyuwaat Pape Siré Dia le directeur général de la poste madame Diegay Fall madame Ndeye Daba Mbuub ñoom ñëpp gis nañ seen teewaay madame Maguette Diop ñu ngi lay bu baax de la zone nord madame waaye di remercier nag koo xam ni bi mu dugg see yokk na kër mi xalaw di jëre mouvement bu am solo gannaaw ba mu tolee teesuwaay yi leen defal di monsieur Mbaye Serigne Samb ñu gàcc ko bu baax a baax a baax mi ngi fii avec une forte délégation di nuyu monsieur Mafal Diop représenté ndijaayam di xaritu teesuwaay yépp di ki xamante ne mooy monsieur Omar Diop l'ancien directeur général de la SAR di nuyu waa Soleil Levant su ma gisee Adja Ndeye Kumba rek sama xol sedd sama seexu màgg ko maa ngi koy nuyu di nuyu monsieur Mohamed Diallo ak monsieur El Hadj Diallo bu mouvement Gëm sa bopp ak Babacar Lo et les jeunes de concert Ibrahima Diouf monsieur Ibou Diouf Basirou Seye Birane Mbaye di nuyu monsieur Mambay Tunkara de la région des chemins de fer

madame Didier Silla waaye ñu nuyu koo xam ne si kanam tuuti dinaa di suwaat ñoom mu Adja di sunu yaay di sunu xarit di kenn ci madame Ndeye Cissé Ndiaye Diop di nuyu bu baax madame Nancy Diallo Nancy maa ngi lay nuyu bu baax Ndeye Rose kontaan na ci yow ci mouvement de femme développement madame Nafi Sidibé Adja Mbarou Dieng du département François ñëw na fii représenté monsieur Maguette Seye le conseil du premier du président Adja Ndeye Daba Mboub madame Aïda Fall Mori bu mouvement Jëf sa bopp madame Diop bu fi di jot naa et madame Seyni Diallo ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax après jël jël si la délégation ñoom ñëpp gis nañu leen léegi nag mbooloon. kan laay bëgg a jox kàddu bi. mooy kan. Cheikh loolu nag moom s'il vous plaît. le dem waaw. vas-y. wala waaw ñi remercier la famille Diaye. Modou. délégation Baye Laye Diaye. soxnaam su baax saa di toog. di Adja Jaxeer Ndiaye. Fagen Koungheul ak Amie Cissé ak Adja Fagen Gueye la grande reconnaissance ak Adja Ndeye Koumba Ndiaye